lu ñaaw gisuma ci loo xamante ni war nañ ko mën a critiquer te dunduñu ko ci sunu réew wax dëgg fa yàlla bu dëgg dee dëgg ndax da ngay gis instant bi Sénégal kër goo dugg ma ngay jàpp novelas ma ngay jàpp novelas wala muy jàpp beneen tele boo xamante ni tubaab yaa ko moom te film yan fa seen doom yi di seetaan ak ñoom ya ñuy toog di seetaan ndoog seen doom yi moo gën a garaaw ay les maîtresses d'un homme marié ndax nan ñoo ko def ay sénégalais la mais ay sénégalais aussi ñun bu fekkee tamit mënatuñoo suñu métier muy suñu culture mënatuñ cee jéggi les frontières nan bàyyi parce que ñun ñu ngi ñu ngi ñu ngi accepté ay film yu daw Nollywood ak Hollywood ñu ngi accepté ay film yu daw nigériens yi di ko def te foofu lu nekk fay am lu nekk ci am ba pare ñun mënuñu ñu koo nangal parce que ñun ñun tamit danoo ñun dañuy ñaan yàlla suñuy film génn Sénégal dem ci yeneen réew yeneen réew yi di ko seetaan yeneen télé yi di ko teg mais li tardeel téléfilmu Sénégal ba yeneen télé yi wala ay A plus ak ay Hollywood ak Nollywood duñ ko teg loolu la parce que ñun gëm-gëm gi ñu am la ci téléfilm nan jàpp ni Tan Bombe li mu def du moom du du Abdou Lahad Ndiaye mais Tan Bombe la fekk sénégalais yi amu ñun mentalité boobu xam ne nit ki day interpréter personnage la muy def sori na ak jikkoom la muy def du moom doonul sax jikkoom feeg nit ñi amuñu xalaat boobu ci erreur la ñuy dëkk ñun nag nee na nag wax dëgg fa yàlla ku génn télé yaa sonn ku siiw yow ya sonn mais nag wax dëgg fa yàlla defuñu lu dul di lancer ay message defuñu lu dul di waxtaan ak doomu aadama yi di leen teg ci yoon boo nga xamante ni yoon positif la quoi.